jërëjëf sonn xujalaay waaye daal bu ñu jógee ci xujalaay fu ñu jëm xanaa ci Mouhamed Niang xale bi toj jamono. kuy Mohamed Niang. Mohamed Niang taalibeem Cheikh Béthio baa ngi nii. dolli ma. waa kër Serigne Saliou. dolli ma. kër Serigne Saliou kooku mooy kan. ah Mohamed Niang mi ngi nii xale la bu ndaw fu nekk yóbbu na fi tur wi. xale boobu yaakaar naa moo wootoon Grand Théâtre. moo fa woote woon ñu naan du fees. le 15. mu feesal ko. le 15 juillet it mi ngi koy waaj. xale boobu ni mu doojee. xamoo ci dara sax kooku mooy kan. Mohamed Niang Mohamed Niang taalibe <laughs> mel kay ma war la kay na manu ti buru bakila Cheikh Béthio mi noonu mil na la ilala ay na muritu la yasal na Cheikh Béthio Cheikh Béthio fa jëm min na yoonu yi Cheikh Béthio na gëm sax yóbbu Cheikh Béthio kañu dellu fa jébbalal sa ruugi dem yaraay cosaanam dëggal ko Cheikh Béthio ndax nga am ngërëm nan ca leer ya Cheikh Béthio mën di xeetali jagaayu mar ya Cheikh Béthio dee taxul nga raw moccu gaa ngi ñëw lee dee taxul nga raw moccu gaa ngi ñëw lee tarbiyoon ci yoon wi di leen nekk soo amul ngërëm tay leer na Cheikh Béthio ma nu wasila Cheikh Béthio jiiti jànkalaar yi a ma kay le daan yu mag yi ak la dëm ga soo xamul borom jamono gëm ko Cheikh Béthio gaw ma sagu muccu ca pax ya Cheikh Béthio Sëriñ Saaliw ca bis ba kuy ñoñom de doo jaar siraat ba santu warna wa asalem saara Cheikh Béthio Mbàkke yaa fi jar luur di daara Cheikh Béthio yéena am mbégam am ngaram de daan ngeen xam bu leen ki jafal na Cheikh Béthio Sëriñ Sall Kaolack mi sagal na Cheikh Béthio ahlu bayti am ngeen jaraama Cheikh Béthio yéena janjireel dina ko taalibe njaam ah. yéena yaay ki leen mas jaboote waaw lu xewul sant ko Cheikh Béthio la fa moom pusi fa koy ndargaajo Cheikh Béthio yéenam jëmam ja am mbégum seexam ba yéenam jëmam ja am mbégum seexam ba tey nu way Sëriñ Saaliw te sant ko tey nu way Sëriñ Saaliw te sant ko tey nu way Sëriñ Saaliw te sant ta jombena sant war na la Cheikh be ta jombena ku mu dëkkoon dëkkal la ku mu xamal manal la ku mu dëkkoon dëkkal la ku mu xamal manal la kii nu tee torox yaaram jëriñ gado kii nu tee torox yaaram jëriñ gado kii nu tee torox yaaram خلقوبتين باي بكر اك بروم خلقوبتين باي بكر بروم جلول بروم جي جان جلي كجر سخنا بامبي جام غور سكر نلا يالنا دون سوا جور وو اي جيكو يالنا دون سوا جور وو اي جيكو اي دوني باملني ناسدي بياني اي دوني باملني ناسدي بياني دي وي جون با اجنا ji teraanga day way ba àjjana ji teraanga day way ba àjjana xamuñu jul ku dul yow bëgguñu jul ku dul yow xamuñu jul ku dul yow bëgguñu jul ku dul yow ca taagoon la ni doon ba àjjana ca taagoon la ni doon ba àjjana ca taagoon la ni doon ba àjjana de am te mës ta xew moo di sa sang be santal santal santal ña ko wa waaw santal ko bel ni Seex Saaliw amu fi woon waaw wax nañu fi lu ne ta def na fi lu ne waaye li am te mës ta xew moo di sa sang be santal santal santal ña ko wa waaw santal ko bel ni se Seex Saaliw I'm gignal nalai jël fasam wa xëy jaar du fii santal santal ah santal jakaw waaw ko mel ni Seex Saaliw waa kër Baay Isma Juuf kër Baay Isma Juuf la ah, ci kaas wa taaya ci kaas wa taaya mag ñi di xëccoo nag gorña ak jannati ci gorña li xew sëriñ Saaliw li xew na ak bokk soppi ngewel waaw waaw jere raw ngeen santal santal ah, santal ja wow wow, waaw ko wow, ni Saaliw waaw xëccoo nag mag ñi di xëccoo nag mu xal ba jox la mu xal ba jox la kii yàgg na la per kii yàgg na la per ah, ngir yaa di jëmam ja yaa di jëmam ja li xew sëriñ Saaliw li xew sëriñ Saaliw ah gis leen ci jëfam ja gis leen ci jëfam ja kii defar nag bokk soppi ngewel waaw waaw Souley Mohamed Niang am na solo soxna ma yi. soxna ma mi se sa pooj bii rek moo ko nëbboon. dama la ko xam ni denc nga lii. gone gi fi mais Mohamed soxna ma mi defoon naa ni mënul lii waaye tey yëngal nga soxna ma mi nag. <laughs> tàcc leen ma Mohamed Niang bu baax. macha allah am na solo taalibe Cheikh Béthio. am na solo jàmbaari Serigne naa la Béthio mam Bambi Thiam. ku ne xam na li ko may lii moom Serigne Saliou. ndaxte. nangu rek am solo. Mhm. olof yi dañ nangu jël na cëru bañ waaye bañ amul cër. nangoo jël lépp. Mhm. nangu bañ amul cër. Mhm. nangu dafa jël lépp. Cheikh Béthio lii mu am li tax mu am ko mooy nangu. ak kennal kennam ki muy Serigne Saliou. Serigne Saliou Mbacké jàmbaari xel koom Serigne Saliou Mbacké borom xel koom jaaga Serigne Saliou moom mi nga xam ne bi fi toogee dafa jàngal nit ñi ñaari mbir xel ak koom. mënoo am koom te amoo xel te bu amee koom te amoom xel it doo duñ mën a dem mu jàngal ñu xel koom nekk fi di jaamu yàlla ba mel dañ ko tey nga fi jógee mu liggéey ba mel du fi jóg Serigne Saliou loolu la ñu jàngal kon yaakaar naa ku jaar ci Serigne Saliou jàmbaar ngay doon julit ngay doon borom fulla ngay doon borom fayda ngay doon kooku Serigne Saliou Mbacké loolu am na solo te lim ñu jàngal it moom dafa ñëw daan na jox leen ma ndaw ña ma def ca ñoom la Cheikh Khadim daan def ca mag ña gone goo ci gis mi ngi tarbiyu ndaxte moom mi ci ndongoy Serigne Saliou la bokkoon euh, baal ñu ak baal na ak salaw ne amaloo kenn yow macha allah baax dangaa disponible kaddu gaa ngi noonu ndeysaan ngaa di waxtaan ak mbokk ya xarit yi waaw ñi nga xamante ñoom ngay baalu ak mhm. ndéwénal gi moom neex na macha allah defati nga sa mënin saan waaw maa ngi wax asalaamaaleykum maaleykum salaam waa Sénégal asalaamaaleykum adduna bépp maaleykum salaam di jiital ci nuyoo bi sama sëriñ sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou di ko ñaanal mu yàgg fi te di baalu ñëpp ak tey baale ak di ñaan sunu borom jéggal ñun ñëpp koor gi nga xam ni ci lañ jógee lépp luñ ci doon def te séenu ko noo ngi ñaan sunu borom nangul nu ko te fëlal nu ko di leen kontaan ci plateau bi rafet na macha allah ni nga dendeek sama nijaay rafet na waaw ñu ngi kontaan lool ci teewaay bi yow danga baax waaw damay masaw di jéggalu ndax mel na ni indiw ma sama groupe mhm. ndax fan yi wax nga ko léegi damaa nekk ci préparation grand théâtre gaañ yi. mu nar a nekk le 15. le juillet. mu mel ni gaañ yi dañoo jógee répétition sonn. loolu moo tax ma jéggal leen ko. waaye waroon naa ñëw indi groupe bi indi ñëpp ñu taxaw. waaye ñi nga fay ñi nga fekk tamit de loo wax rek suul na. waaw sama gars de. xam nga <laughs> loo loo wax rek ngeer nañu. waaw waaw moom de <laughs> nga ndeysaan. way sunu borom da ko barkeel. Mm-hmm. ba mu dugg ci xolu ñëpp. looloo waral foo ko wooyee nit ñi dañuy doon nit ñëpp dañuy bëgg. Mm-hmm. ndax Serigne Saliou moo ne ci xolu ñëpp waaw waaw ba tax na noo ngi kontaan di dégg lool ci invitation bi. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf sa wàccuwaay.